leen di nuyu internet yi bàyyi xel sn xibaar point com del sigaanu yéen seen reportage bi nga xam ne sn xibaar mi ngi leen koy amal tey nag ñu indi benn thème boo xam ne dañ koo war a waxtaanee muy taxawaayu maire bi si dëkk bi di Touba askan naka lañ ko gisee est ce bi li ko waroon si dëkk mi ngi koy def rawatina tuuma bi nga xam ne teg nañ ko seen kaw muy 465 yi nga xam ne wax na ni maire bi daf koo luubal lépp jëmoon ci ay forus yoo xam ne dañ xam ni mooy ci dëkk bu sell bi di Touba askan wi ban gis-gis lañ am ndax loolu lan moo tax maire bàyyi ba tuuma loolu ñëw ñu doo ko leeral askan wi est ce que nekkutoon avant loolu lépp fi lay xewee ci snxibar.com nee naa leen mooy site bi nga xam ni dafay dox ci lépp luy bëgg-bëgg askan wi lépp loo xam ne lëndëm na moom moo koy leeral Saliou Dieng moo nekk ci bi Cheikh Cheikh da ban gis-gis lañu am ci loolu topp ma man Cheikh Ndiaye laa tudd tey ñu ñëwoon di waxtaane taxawaayu maire bi ci dëkk non man de wax dëgg yàlla si dëkk bi laa dëkk mais gis naa ne vraiment taxawaayu dëkk bi moom niñ ci war a taxawee des na làmp yi tàkkut ñu ngi ni làmp yaa la preuve mooy mën nañoo wane làmp yi benn tàkku ci fi mu ne nii bu guddee jant bi bu dey bu sowee doo gis sareet yeeg oto yi jaxasoo. waaw ñun day kenn ku nekk ci la ngay liggéey rek nga xam li ci ko mën a xam waaye ñun ci wàllu circulation la dëkk bi ni mu doxee ci diggante sareet yeeg intersection yi mel ko fàtte ndax internet yi boo dem bu ne day gis mbaam yi wër ko war sax du a jàll kon nag mel na foofu moom circulation moom doxuñu ko man kan ma ko war a waaye circulation taxawaayu maire bi ci dëkk bi li ko koy def waaw ñun de euh, maire bi suñu diggante moom li war ci dëkk bi ñun suñu wàll hmm. ñun ñoo ngi koy defalante defaluñu maanaam ñun hmm. ñoo ngi koy jëriñoo te ñun jëriñu gisuñu ci suñu bopp ci yaram gi ci dëkk bi ñun gisuñu ci suñu bopp waaw ñun ñi néew daw fii hmm. hmm. ci maire bi euh, yor bi mu ko yor ñun gisuñu ci suñu bopp ndax li warloo li moom mooy weer wu dee chaque weer wu dee dina kii fayeku na dikk fii saret bu ne fay ko ñetti téeméer mu jeex mu dem te aw yoon képp mënuñu ko am fi bu nawetee am ndox la ñuy xuus fii ah ñun xamuñu ne woon maire am na ci dëkk bi xamuñu ko woon de ndax li tax xamuñu ko Mhm. mooy bu nawetee coono bi ñuy jànkonteel surtout yoonu kër Baay Laat ba xam ne moom la ñëpp yaakaar mhm. muy dem ba Taïf mhm. dem ba Xelkom coono bi ci nit ñi di nekk ay accident doo nga fay am ndax ndox mu bari ak yoon wu yàq ma defe ne bu maire amoon ci dëkk bi defe naa boobu saytu duñ ko saytu ñu dem même maire wax dëgg yàlla xam naa booba léegi li ñuy laaj booba léegi maanaam moom gisuñ ci leen loo xam si ñun defal na ñëw ndax aw yoon ci boppam ñun moom la ñuy ndax boo yabee boo génnee fii wala ngaa jéggi raay ab ab benn ASP ñëw eh, tekkal nangu sa yére fayee ko la trois mille def ci poosam ah te doo xam loolu mooy lan te du la bindal reçu du la bindal dara waaw. loolu maire bee koy def. ah loolu de maire bi loolu mu wàllu maire bi. ñun de weeru dee kii fay ko ñëw fii ñu fay mille cinq cent weeru dee. te wàll li ma ñor mooy. Mm-hmm. na fii yaatu. sare di jaar fii di dem na fee yaatu sare yi dafa jaar di dem kaw tali bi na am shirk na am uh, forus fu ko war a am na ko am ñu boole ci yarak ak teggin man nag maa ngi nii nëbbuma laquma te loolu wax dëgg yàlla am nañ ci part de responsabilité ab dëkk dañ koy toppatoo dañ koy defar Touba comme fi mu ne àdduna bépp a ngi wax kenn ku ci nekk naa bëgg na maa ñëw Touba visiter si Touba dëkk bi da ñi fi nekk dañoo war a am ay taxawaay yuñ def di xool mbedd yi muy rafet ñuy xool organisation bi ñi nga xam ne bii ñoo yore dëkk bi bu guddee ñuy xool bu bëccëgee ñuy xool sareet yi fi mu ne nii bu guddee ci kaw tali bi la ñuy taxaw kenn ku ci nekk di yeb te n'importe kii fi mu ne nii àdduna bépp fi mu ne nii ñi ngi jaw daw jublu si Touba Touba war nañoo am comportement yoo xam ne yi wuute naag yi fi nekk dëkk bi dëkk bi boo ñëwee da nga naan ana kan moo kan moo tracé dëkk bi da lay wóor ne ay nit la parce que dëkk bi man wër naa fépp mais gisuma dëkk bu ñu trajet bu mel nii mais fii boo ñëwee da nga naan ana ñi defar dëkk bi mooy ñan. te moom loolu moom mooy maire bi moo ko war na saytu saytu léegi nag bu dee mën ñi ngi liggéey ñoom gis ñu yàlla Abdou Abdoulaye Ka gis ñu ñun ndax liggéey boo dee liggéey ñi askan lañu gis suñu bopp te ñun gisuñu suñu nag bu fekkee ne moom Abdoulaye Ka ñun borom sar yi dañoo bokkul ci askan wi nanu wax ñun bokku mom, mel na ne boole wuñu ci askan wi boole wuñu ci da ngeen jàmm daa maire moom day lekkum xaalis waaye ah, ñun de dañ koy jox ñu koy lekk ndax bu ko doon delloo si ñun ñu xam ne delloo si quoi ñun defaluñu dara ñun dara lañu maire yi deful amul lenn luñ ñun ñu yoroba borom saret maire yi defaluñu dara ñun ñoo koy jëriñoo ante moom jëriñul de wax dëgg yàlla maire bi moom dëkk baa ngi nii amul guddi da ngay dox ci mbedd yi agresseur yaa ngi fi agressé nit ñi kenn topp kenn du leen jàpp dëkk baa ngi amul mbedd amul menn mbedd mooy jaar gis mbalit mbalit maa ngi fees dell ci biir dëkk bi na xus maire bi moom toppatoolul dara fii ci dëkk bi waaw nun ñoo oto yi nekk fii ci dëkk bi yi ngi nii oto bu ne ci da nga dagg 3000 weer wu dee da dagg 3000 ca boo freiné ci kaw tali bi ñu ne la fii stationnement interdit waroo taxaw ci kaw tali bi wàcce client ca client yi ci kaw tali bi la ñuy yéegi ci kaw tali bi la ñuy wàcce amuñu trottoir bu ñuy wàcce trottoir boo taxawee tey ji wàcce ci trottoir wala fi police fekkee ca amul stationnement interdit. waa nag sédduñu leen lam ñu sédd daal mooy suñu amee suñu dërëm ñu dikk fab ko ndax ba àddina sasoo ba tey mës mësta dégg fu ñuy daggale orange ak këyit mm-hmm. te ñu ngi ñu ngi dagg këyit ñeenti téeméer mm-hmm. di ko dagg te loolu mës ta am. mais fóorus yi moom rafetlu naa ko ndax dëkk day am fóorus ndax fóorus dafa am stop dafa am bless de stop dafa war am fóorus dafa war am ndax dëkk boo xam ne ngay dawal xamoo gauche nga war a dem xamoo droite nga war a dem boo àggsee ci rond point kenn du xam ko am priorité soo amee fóorus nag da nga bu bu fóorus bi tàkkee rouge da nga taxaw bu tàkkee vert nga dem. feu rouge moom damaa gis européen yi fi mu ne ñu koy éliminer feu rouge moom day yàq mais defarul dara. feu rouge moom man fi mu ne nii man à ma part personnellement man d'accorduma ci. agent yi ci dëkk bi fi mu ne nii bu ñu taxawoon fi mu ne nii di respecter li ñuy def di xool di may nit ñi ñuy kii di arrêté oto yi kii nit ñi ñu orienté leen ñu xam nan la ñuy jéggee avant tout mais dañoo jéemul ci dëkk bi kenn waxu ci dara kenn defu ci dara.